suñuy jaar-jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam am. abonné wu mën a abonné wu ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. xalifa général aarifina na fi yàgg te wér ak li dale ci moom ba ci Seydina Omar ibnu Ubaydu wa ibnu sayxihi bu ko defee ñoom ñëpp yal na leen fi yàlla bàyyi ñu taxaw liggéey bi ba nu yeggale ko fan ko jëmale di nuyu sama sëriñ Cheikh Souleymane Niane waaye ak eh, xaritam bii naataangoom bii di Cheikh Moussa Touré yal na leen yàlla eggaleel seen yéene yéen yéene ñaay xare di di xëy di gont amul fu mu leen jëraloo dem te buñ doon wàcc ko na ngeen di wàcc ngeen waaye yéen a ngi da ngeen di door a tàmbali kon nun dox rek moonu moonu war léegi nag li des rek mooy noonu ko sëriñ bi waxee rek 2004 la liggéey bi tàmbali woon ba benn benn baas ca wetu kër sëñ Fallou Cissé benn baas ca mbedd moomee ca bunt kër ba muy jaay ay télécentre foofee ak ay ca télécentre ba ak i portable foofee lañ ko jëkk a def 2004 waaw keroog laa jëkk a laaj keroog bi ma ko laajee ba eggal sëñ Cheikh Diagne di ko bëgg a wàññi Cheikh Souley ne ma am liggéey day egg nan ba noppee nan ko daal di yóbbu ci Cheikh Aliou bu ko defee mu man ko jotal keroog ba léegi itam fu ko defee Ah, noonu lañ koy defee kon yal nan yàlla nangul ah, pajuk ajo mujj gu rafet xéewal yu ne gaañ ñëpp milliards yeeg millions yi ak junni bi nga xam ne moom lañ laaj ci jumaa ji son sëriñ nee na li dal bi ba ay milliards nañ ko bàyyi bu baax a baax a baax addiye jooy na nee na luñ may laaje ginnaaw ba dox ma jox borom jumaa ji sa si jumaa ji booy na ngir wëttir yi ak pakk yeeg midaay yi ak tiitar yi kon nag léegi li ci def mooy sukkaru koor man lay laaj sukkaru koor 2004 ba 2023 ne mës ta manqué lu dul benn at bi nga xamee ni Covid 19 bi ñëw na kenn defu ko booba képp la masam na manqué waaye bu dul lool 2004 ba 2023 waxtu wu nekk ñu ngi koy laaj kon nag alhamdulilah ñi ñu ko doon joxe ñi ko doon joxe ñi ngi fi xam naa du mën a ñàkk ñu manqué ñu ko wuute ak ñu wujji suñu borom ca àjjana waaye nag teewul rek ñu ngi koy laaj kon ko kum fi fekk te da nga daan joxe ca la nga daan joxe wàññiwu la dara nan koo indi sukkaru koor la ana kii yor kii jógal taxaw nii ñu fekk la maa ngi ñaan itam ñi ci biti ñi ci képp koo xam ni kii man ngaa jël te yàlla tax nga yób nga nga jóg ñu jox la nga indil ñu ko fii ci biir waaw ndax ñëpp mënuñu kenn ku nekk fekk ma fii day jafe waaye nag kenn ku dem ku ne gaal gi bu teeree kenn ku ne mën na ko yóbbante ku mën a dikkal sa bopp itam ba tey ñu ngi ci jaayante bépp soxla bu waaye am te mu jafe woon la tij boo ko ci sa ajo day faju kooku amul nattable jaayante leen ko ci man ci barkeb Seex Souleymane Niane maa ngi taxaw nii gaal guy dem la bind leen leetar ci man képp koo xam ne aman nga aajo boo xam ne ay at a wala ay weer wala ay fan mënoo fexe ba mu faju bindal leetar boobu ci man sa borom nga nga nga bind ko sa borom ci man ngir aajo boobu faju def leen ko kon indi leen xéwal gi mu ñëw sa kër koor nag laa laaj waaye su këru koor boobu nag yëmul fenn lu ci waay mën na ñëw joxe ko fii dégg ngeen ko nee na ndigal la daa iman sëñ Ilimane Cissé wax na ko kon lu tàmbali woon 2004 ba 2023 nekkul ay buñ ko masaan laaj dañ koy kon nak gaaw leen tuuti te yàlla tax pajuk ajo mujj gu rafet Cheikh Aliou Cissé nee na yàlla rek a mat a xam dëgg rek a mat a wax tey rasulaay rek a mat a kon nag du leer la yalla rek a mat a xam taarifoo nii qabla an tahbudoo wa in lam taarifoo nii fa kayfa tahbudoo nii waaw lamb leen indil ñu sukkaru koor sukkaru koor nag yemul fenn keesu sukkar ba ba junni daal yemul fenn daal moom lañ fi daan laaj xam ngeen ko kon dikk leen joxe ko bokkul ak liñ fiy laaj leneen lu ak yi ngay indi di ko nuyoo sa sëriñ yooyu yëpp ak sukkaru koor nañ ko xamee noonu kon le ku ca joxe bu mu tee nga joxe ci lii sukkaru koor la aajo wax ci defe naa ni moom sama sëriñ a ngi teew waaw ci moom ko defe wa ke bismillah te doxal ma ko tàbbalal foofu rek waaw bu ko defee kon ah weeru koor lañ koy defee ñetti fan ñetti fan dama bëgg ngeen di xam li ni def bu baax a baax nun dañoo seddu ñetti fanu koor mbooloo mi ngi dale ci ñett mbooloo mi ngi dale ci ñett yemul fenn mbooloo mi ngi dale ci ñett yemul fenn benn yàlla képp ko ñaar matul waaye boo xasee am ñett am nga iliman ak sa ay maamum waaw ñett buñ taxawee rek am nañ jàkka am nañ iliman ak seeni maamum kon lo mooy ñett yemul fenn nak boo xasee ne ñett rek yematul fenn kon bu nu yàlla dimbalee wërsëgale nu ñett fanu koor nanu xam li am lan la yaa ki nu àndal danoo defal départ volontaire koo xam ne bu la defalee sa àdduna ak sa àllaaxira faj sa xol defar sa jikko faj sa xol defar sa jikko ni la taneetuma la ma kon léegi la sukkaru koor moom wax dëgg yàlla war naa am bu baax baax te kuy ñëw ku ne war nga koy jéem a gànnaayoo ni buma ma demee bis boobee dinañ man laaj sukkaru koor nañ ko xel kon kon sama sëriñ sang ñaan mu ne bu kenn bu kenn mer bu kenn mar kon juróom benn yi daral na asamaan xalaqa samawaati wal ardi wa ma baynahuma fii sittati ayaamin ñu bàyyi ko xel bu baax kon borom touba daru midina mu day touba daaru midina mu day touba daaru midina mu kif mu bu bu mer bu kenn mar gis nga ko noonu kee moom daal di wax ne yàlla rek a mat a xam waaw baatu laa ilaha illallah moom mat wax dëgg rek a mat wax anam ñoo jox dama ko ko bu ko kon loolu Al la ju wér wa ma aatakum rasul fa kusuuf wa ma nahakum kon mooy yee rasulaay rek ka mat a bay dëgg rek ka mat a wax nag mooy fahlam annahu laa ilaha illa allahu wastaghfir li zanbika wa lil mu'minina wal mu'minat kon nag Cheikh Ali gàcce ngalaama yàlla na nga wér te yàgg suñu kanam yàgg say rek ba nu eggale sunu yéene ak saaba yi nga xam ne ñoo ànd nag seen way jurwa di xëy di gonte di fanaan ba fépp nooy adduna bi yëpp yàlla nañu leen wuy te jumaay ji nga xam ne moom nga taxawal muy jumaay njëriñ nga fas yéene ko yëkkati buddi ko samp ko daaru siise yal nañ ko yeggale ba ñu woote bisu ubbi ba bu kenn des yal nañ ko fekk bi jaay sayyidu sallallahu taala alayhi wa sallam ndax ci kat kooku kat moo wax ni moom borom jumaay jooji moom kat moo wax ni ku ma noppi ci yow taneetuma la te xam nga loolu dalaa wax ni rek doxal bu la kenn naxati la la wax geer gi ñu doon naqatoo sëriñ si doon Karena nag gajal sa geer eh, muril la sa pabiyam ba nga jàkkaarloo mbir ma ah eh, wax dëgg yàlla goree ci def te kamal alif lam mim. kon gaaw leen di koy johet. ndax fi na waktu-waktu waxtaan ngi jot gaaw leen ci addiyee ji weeru koor la sukkaru koor la ñett fanu koor la ngi dale ca ñett kon loolu kenn ko xamal bu ko dee laajal te kenn wëccu ko te lu sukkaru koor nañu ko def ak lu ci milliard sax bu fi génne nañ laaj sukkaru koor gis nga ko noonu kon loolu mooy li am kon nag ku ci am sa ajo na ko ci fasaale ku amul aajo tam nga joxe sukkaru koor rek ku ko daan joxe te wàññiwu la dara bu ko bàyyi ku ko daawul joxe te am ay jafe-jafe nga di ko joxe nga seet ba xam kon ndax ki ñu defal kan ndaama la wax wa dëgër na te sëriñam tànk ba gaaw ne waaye ne fu mu déggee mu teg kon ñu bàyyi ko xel bu baax kon kenn xamal fatiha fatiha ni mu jure alxuraan baqara ba naasu ki nu xamal ni ko fatiha jure xamal nu juróom ñaari araf yi nga xam ne nekkul ci abajada yi nekkul ci fatiha ba nu man koo doxal waaye kooka waaye amu amuñu poyam waaye lu dul bu wootee nu wujj bu santaanee nu def bu laajee nu joxe bu teree nu bàyyi kon moom bu ne alif laam miim lu jóge ci yàlla jaar ci jibril wàcc ci muhammad rasulullah loolu day bàyyi woon nañ ko fi ay ati ati ati at ba muhammad rasulullah demeeg léegi cheikh Moussa Cissé rek moo ko fi eh, moo ko fi eh, eh, waneegun leeral kon bu ne bismillahi rahmaani rahiim fatiha téeméeri saar ak ak ci fatiha kon juróom benn fuk esuf la waaye loolu kon bu fekkee ni moolu li am te borom màggal gii ci daaru Cissé ci ndaama ci waxu dëgër ba moo ko xamal ma dara des ci lu may ko njukkal li rek loola kon mooy bismillahirrahmanirrahim. da ngay dégg nit ñi naan wala qad aataynaaka sabhan min al masaani wal qur'aani al asiim ñu daal di wax ni kon ginnaaw juróom ñaari aaya yooyu sunu borom xam se na ko jox yàlla jox ko jaam ci ñaar ñaar ba tax am na ñoo xam ne sax dootuñu julli lu may ñaari rakkaat nañu bàyyi li ñuy def fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuuna aywa na ñëw na ñëw na ñëw ñi ci biti nañu andi ñi ci biti nañ ma laajal andil ma ma daal di koy joxe ndax fi mu ne waxtu waa ngi dem gis nga ko noonu ñaar ñaar yooyu ci biir aaya ci biir faade ji la nekk waaye def na am ñoo xam ni gëlëm nañu tey ba di ko sànq di ko tuddee ñaari rakka lañ ñu yónnee ba kenn nangatu la julli ñett wala benn witar sax lu may ñaar ñaar kese te doo su ko doo su jot xam ngay jant baa ngi so liggéey bi neexul làmb ji toj waaye borom naggal gi ci daaru siise borom Touba daaru siise gi ci waqu dëgër wa ca ndaama googee xam ne yen bi attan na ko sëñ Tuubaa yeneen ko ko muy dem ba tey nu ko fi ëpp lu yeesul te deesu ko wàññi ma ne kooku moo nu xamal ñaar ñaar yooyu yi ci fatiha la nekk taxul mu nekk ñaari rakka yi ñu war a julli ca moo di bismillahi rahmaani rahim ba alif googu ñu bari duñ ko jàngale waaye alif googu mooy alhudaaniyatu kenn yàlla rek baa gi bahaa ullaay siin gi ullaay meen gi mulkullaay yëpp da ca def hidayatu ho ahadun ahad lay firi waaye nag laam nga lay nu xulóobul xaalif yi na laam laam nga laamu ñaareel ba letti fa xulóobul xaalif yi na waaye xaasaqe nga hidayatu ho gindi ko ci yàlla mu ne kon rahmaan rahmaanu dunya rahimu rahimi laaxirati kooku mooy bismillahi rahmaan rahim rahmaani rahim jooja nag boo ko booleeg alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim jàppal ñaara ngoog mu ne maliki yawmi diine iyaaka nahabudu wa iyaaka nastahinu ñaara ngoog def na ko noonu mun la kon ihdinas siraatal mustaqima siraatal muy ñaar allazina anhamta alayhim xayril maxdubi alayhim ñaara ngoog mu ne wala daa liina amin gis nga ko noonu ñaar ñaar yooyu nekkul ni dañ laa wax ni booy julli nga def ko ñaar ba tax am ñoo xam ni ñu ngi jaxase réew mi kenn xamatul looy def nañ ko bàyyi ñun Cheikh Moussa moo ñu xamal ci xamu Cheikh Moussa la ñuy xamee kenn mënatuñoo nax nañ bàyyi loolu ñaar-ñaar yooyu ya rek la yàlla wax si yonent bi ni ko wala xadd aatay naa ko giñ naa ci téeméeri téere ñeent yi ma wàcce ni dinaa la yónnee juróom-ñaari aaya yoo xam ne ñaar-ñaar lay doon lii ku ñibbi boo nelawee ba yow na nga ko seet te lii noonu ko xamee ci barke borom Touba Cheikh Moussa Cissé ci barke sangi ñaan kon nag koo toll bu fekkee xaw li rek ma daal di joxe incha waaw kon ma daal di jàng sar saara bi rek yàlla nañ ko teewee na nga ni déwén امدي وشكر لمن كل بشارة لا ريتن دون سوخ تنين أزازارا لو سناي وادم وانم بلا شوقات مسخاد لي من باني دايما يا زارة لو سناي وادم وان بلا مسقات مسقات من باني دايما وانا نزمارا ولاي كل للادم أبار ما كرمات سنين جار جار دال أنا ما كان أنا بني لب بقى خبر dana wax ni su ko xari doon seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.